Cheikh Hadji Omar wax na ni nee na daal yonent bi nee na ku xam lu baax digle ko donte dañu laa dóor ku xam lu bon tere ko donte dañu laa dóor nee na ca jamonoom la baaxe woon mais léegi ku ko def def musiba waaw waaw ndax ñu wutu yonent bi yonent bi li waxam di for yépp jamono dina ñëw bu ñu ko liggéeyul mu yàq àdduna tax mu di fi am ay représentant ba faw waaw xamuloo ni weddi waxam aayu waaye na fekk ki ko weddi du noonam représentant waaw waaw waaw waaw mais tax na Cheikh El Hadj Omar bi nga xam ni moom représentant la te wóor na ko ni représentant la wax na ni dëgg la yonent bee ko wax wante bi jamono digle lu baax tere lu bon dafa am koo xam ni dafay toll ci niveau ba soog koy def bu tolluwul ci niveau ba su ko defee benn dana jur fitna wala dana xotti ormay jullit yi musiba fekk ko ci benn werante nekk soxna wax na ci ni aaya bi yàlla wax ni udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati al hasana nee na ci biir jamono rek lay sog a jot waaye ñooñu sax waruñu ko dégg li yàlla wax ni boo ma dee wooteel wooteel ma teg ko ci xam-xam boo xam ni du xam-xamu téere xam-xamu dégg jamono lay doon moo di al hikma daf koy jël ci politique bu rafet bu nga xam ni ki ñu koy digal dana mën a añante bi yow te kaas du fa toj ndox du fa tuur waaw waaw ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه شيخ الحاج عمر نانا كوكو ديغول سي بي جامانو ديغلوكو واي كوكو ديغ خامني دوكو جوغ رك تاخاو تا ندم ني هي يالا تيرنا لي كات نا فانكو واخ فلان لا تكديا du taxaw Seex Xaj Maalik da ko wax te kenn gënu ko ragal yàlla waaye dafa xam jamono waaw gouverneur général la ko woo ñu ko am na lu ñoo tuddee alcool ñu koo indi ci réew mi di ko jaay xam naa ni nag comme yéen ay jullit ngeen ñu nit ci suñu wàllu màndu daañu def ñaari yëpp daañu bàyyi commerçant yi ko indi jaay ndax njaboot la ñuy tugal suñu njaboot lañu ñun administration bi waaye yow mi nga xam ni kilifa diine nga daañu la bàyyi nga wër wax nu mu araame Cheikh El Hadj Malick ni ko yow protégel sa njaboot te bu ma bàyyi ma wër di wax ne araam na ndax sharia bi mayuma ko mu ni ko lu tax sharia bi mayuma ko mu ne ko dafa am loi bu ngeen wote am ñu ngeen tudde ay citoyen français ci réew may leen liberté bu day nag alal ji ñu ñàkk ba moom ko sañ nañu dem ci boutique ba ko alcool naan ko ci boobu nag jamono la ba moo ëpp doole sama atte su ma dajee citoyen bu ko jënd ma ne ko eh, li nga jënd xaram na mu dóor ma ñu dem police ba automatiquement moom moo am raison man amatuma raison